Euh, Guinaou, Bima santé Natango, le ministre en charge de la santé qui occasion Bima amtei pour ñëw waxtaan ci ñaari mbir implication ministère de l'environnement et du développement durable euh, ci xeexu mbas mi nga xam ñaareel bi ci ak population également li la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 bi nga la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des sachets plastiques La loi bu le 30 décembre 2019 Assemblée nationale voté à l'unanimité le président de la République promulgué que le 8 janvier 2020 nous publions au journal officiel le 20 janvier donc au terme des dispositions transitoires nous nga xam ne concerné loi bi loi entrer en vigueur trois mois après sa publication donc loolu wara a ak le 20 avril bi nga xamné mom lañ jëm kenn wul bi jangoro bi ganisee aduna bi son excellence le président de la république dafa am programme bu am solo ginaaw mesure yi nga xamné ne nako na ko ci muy programme de résilience économique et sociale bimu jaglel li nga xam mom moy mooy mbass mi nga xam comme ni ko waxee sank dafa gane ci suñu rew ben banqaas ci xeex bi moy la stabilisation macroéconomique et l'appui au secteur privé Manam naka lañuy fexé ba aar suñu kom koom ak jappalé ñi nga xamné ñom ñoy yëngatu ci secteur privé bi Lorsque nak waral nañu loi bi ñu au journal officiel le ministère de l'environnement et du développement durable engagé un plan d'action pour voir si ak parties prenantes yépp wala parties intéressées yépp pour naka la la même compréhension que li nga loi mon la loi 2015-09 du 4 mai 2015 bi nga aussi dañ ko pour mu xeex li nga xam ne moom plastique ginnaaw nous avons commencé sunu CRD dans les régions Nous, avons ni bi nga xam de mi ganesi de instruction yu autorité yi Waron ñépp bàyyi ci xel tax buñu suspendre activité yoyu ba jëmi jamono motax tay ji pour ne pas pour bañ indi ay jafé euh, jafé supplémentaire ci li nga xamné mom moy ci walu emploi bi ci walu social bi ci walu secteur privé bi autorité yi sunu kilifa yi jox ñu ay tegtal pour ñu indi ay assouplissement par rapport ak li nga xam ne mooy entrée en vigueur bi ñu dégmal le 20 avril pour que mu bañ a indi ay ngaañ-ngaañ ci ñi nga xam ne ñoom la concerné moom la loi bi concerné ñu joxoon ci ñi nga xam ne dañu doon yëngatu ci li nga xam ne moom mooy les sachets do ak li nga xam ne moom mooy mbuusu glace yi xam ngeen ni également ñu ngi dëgmal weeru koor lu yàggul te weeru koor nag ku ko wax wax ne soxla bi nga xam ne population yépp dinañ ko am ci wàllu jëfandikoo ndox donc ñaari situation yi tax na lépp li nga xam ne dafa concerné woon sachet ndox yi ak mbuusu glace yi dakkal nañ ko ba mm, euh, xeex bi nga xam ne moom lañu sumb ñu jagleel ko coronavirus bi ba yàlla may ñu mu génn suñu réew waaye nañu jàpp ni loi bi dafay dugg en vigueur incha allah le 20 avril lépp li nga xam ne moom importation maanaam jéggaani indi ci biir réew mi ak fabriqué ci biir réew li ñuy tuddee les sachets à usage unique loi bi dañ koy appliquer incha allah ñu ngi ñaan yàlla ñaanal yàlla réew di féliciter également di remercier ñépp ñi nga xam ne ñu ngi taxaw booba léegi taxaw temm guddi ak bëccëg di xeex li nga xam ne moom mooy le coronavirus bi nga xam ne dugg na sunu réew maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah